tëggal bi yàlla may ko ci ndam combat boobu naka ngeen ko waajee waaw waajoon nañ ko ak euh, ni ko war a waajee parce que ku a xam na ni combat moom bu dee ci côté mbër la wàccaay moo moo métti waaye bu méttee rek yaakaar naa bu demee ci bi dina dina woyof wax dëgg yàlla liggéey na làkkatu na ànd na ak ay mbokkam ànd na ak saafam ànd na ak aussi tamit képp koo xamante ni yaakaar na rek bu àndee moom dina ci am ndam moo xam ci coach bi Lamine Golo ak waa école am bi yëpp moo xam ci ay nitam yoo xamante ne sportif lañu ak ñi nga xamante ni mooy xaarim boxeur xam nga ñoom ñëpp dañoo organiser wu xam nga def benn say taxañ léegam say neex ta damm loolu daal jàpp naa ni loolu laa gis aussi tamit euh, moom lañ ko liggéey mais encore daal liggéey bi métti woon na trop trop trop trop mhm. waaye alhamdulilah rabbi alamin ba ñu mayee ndam aussi tamit jàpp naa ni lu mu liggéey aussi loolu la ko yàlla fay mhm. ñu gis moom mu ngi ci écurie ki nga xamante ne moom moo di euh, Père Balla mi nga xam ne moom la tuddee boppam yow nga nekk ci écurie ki nga xamante ne moom moo nekkoon sa wayjur bu góor di écurie Double Less ñu gis ne keroog ca làmb ja fële nga xamante ne moom moo di arène nationale am na benn boucan bu fa amoon est-ce que mën nga ñu ci dikkatal tuuti ndax en général ki nga bokkul ak écrit dañuy am foo xamante ne dañ leen di yemale doo accéder foofu noonu bu kan boobu noonu mën nga ñu ci ñëwalaatal waaw man coow loolu ma ci parce que ku ne xam ne làmb côté cumbukaay dañ leen dox ni cumbukaay ak biir géew dara du warut a dox seen diggante kon dama ne yaakaar naa ne affaire sécurité bi dafay am loo xamante ni bu ci joué bu ci bu ci bu ci doxee rek wala bu buñ ko organisé te déggoo ñu ci mbër bi tamit dafay xaw a andi problème Euh, c'est normal nag mu am ci diggante ñaari adversaires yi leen séparé mais jàpp naa ni biir côté biir géew euh, côté ci bi nga xamante ni moom la mbër bi toog mhm. foofu pour man euh, jarul sax policiers yi dafa taxaw waaw nag ñoo xam seen liggéey wax dëgg yàlla dima leen jàngal seen liggéey ñoom ñoo xam lu tax ñoom ñu ñëw taxaw foofu mhm. pour organiser mais man moom loolu moom père Birane lañ koy wax parce que làmb ba muy baax ba làmb doon làmb léegi mhm. cumbukaay homme de tenue sax mënu foor waroon na faa ñàkk xam te tey euh, ñoom seen liggéey la def mais mbër bi tamit bu fekkente ni dañ koy def loo xamante ne arrangé ko moom it du ko nangu dañu waxante dëgg parce que kenn da nga koy def mu mi ngi fële Balla Gaye mi ngi fi lan ngay tëjee nit ki ñu baax nag ñoo fa nekk parce que ñu bëri dañ leen waxtaan xam nga am na lu bari loo xamante ni ñoom sax ñoom ñoo ma ciy woo di waxtaan ak man mais tëj bi moom loolu moom dafa war a jeex ci làmb loolu moom lu mën a ñàkk ci làmb la am na nag loo xamante ni day dem ba benn instant day dem ba yëfi tubaab ko moom làmb ja biir géew bi géew ñëpp la waaye nag cumbukaay jàmbur mbër bi la intéressé mbër bi la engagé engagé wul benn sécurité loolu nag ci père Birame laa la wax Birame Sène loolu moom moo koy gérer moom moo ciy waxtaan ak sécurité yi sécurité yi defuñu dara de seen liggéey rek la ñuy def parce que ñoom jàpp nañ lépp lu gën a wóor rek dañ koy def dañ koy def aussi te loolu dama ko nangu ñoom ok ñu gis euh, combat bi amoon la set pression bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci yow euh, amaana sa mag moom moo bëre mais ñu bari dañ ne Sa dafa taxaw ñaari taxawaay dafa taxaw en tant que petit euh, petit frère en même temps taxaw taxawaayu ki nga xamante ne moo nekkoon seen waajur bu góor parce que en général Balla bu doon dem ci ay combat dernière ñi wax ak ki nga xamante ne moo nekkoon ndem si yàlla Double Less lay doon mais pression bi nga ne moom moo nekkoon ci Sa Thiès gis nañ ko bañ na ko ba solut ay dàll sax kawas la duggee biir stade toog concentré wu mel na ne sax moom bëre bi keroog keroog yow yaa ko bëre pression boobu noonu naka nga ko dundee. loolu xam naa ne topp nga ma trop samay kawas ak samay te yàlla baax na de toute façon làmb dafa métti woon moom laay wax rek au da dégg lu nekk da ngay dama lu ne ko waxal mais dëgg yàlla man moom dama leen ànd ak moom rek yàlla may ko ndam ñu mën a retourner waaw sama daal nag fii laa doon na sore daal mais dafa ko maa boo dafa xat heureusement yoroon naa kawas ba ma demee. est bokkul ci seen i tamit. non non non na bato yàlla moo ma seede tànk neen laa doon def foofu kay. mais ak naaj bi sax mu tàngee woon moment yii doog a mais xam nga làmb dafay toll benn moment bëgg a lijjanti bëgg a lijjanti lii la mais du la permettre nga dem di lijjanti ay dàll ak yooyu. Mhm. parce que victoire bi ma gënal ay waxi daal loolu doo nga taxoon solo ma daal beneen bi ci des nag mooy euh, ñaa ñu bokk ndey ak baay. Mhm. même boo leen bokkul ikiri waaw dafa am loo xam ne da leen di parce que tamit encadrement ci sama staff Omar ci la bokk staffam ci encadrement Mbacké ci laa bokk dont ko bokk ñu équipe dëgg la nag yoon am na lu mu am na lu mu waaye nag làmb moom dafa am loo xamante ni fii lañ ko fekk te moom laay waxaat Pébira làmb dafa neexoon xam nga làmb neexoon a neex boo xamante ni gox ak gox làmb nekkatul ay ay ay benn individuel de déedéet donte ko sa dëgg la benn individuel mooy bëri mais saa yu jugee gox bi ñëpp ay jug kon yaakaar naa ne war ñoo mën a interdire benn nit mën a bul ànd ak kii te bokkul ci moom wala bokkul ci staffam wala bokkuñu gox bu nekk loolu mooy neexal làmb boo koolee keroog euh, combat. franc soog ñoom Eumeu Sène ba ñëwee ak ñoom Ama Baldé ñoom Boy bañ jaaree stade bi ñëpp a jug nga jóge fa ñëwaat nga gis euh, Modou Lo ba mu ñëwee xam stade bi ñëpp stade bi dafa jug ñu ànd tous neexal làmb nañ jël li nga xamante ni dafa dafa dafa tubaab bi ñu jël ko teg ko fële loolu amul yoonu yoonu làmb newu ci tubaab organisé wu ko du cosaanu tubaab du cosaanu lenn cosaanu nit ku ñuul la suñu cosaan la dafa am nu cosaanoo nag li mu cosaanoo buñ ci yàq dara beneen bi ci des nag lu ci ëpp ñun ñooy defar ñooy yàq loolu nangu naa ko lu ci ëpp ñun ñooy defar ñooy yàq mais li ma gënal mooy nañ jël làmb delloo ko ci cosaan bi delloo ko ci aada bi delloo ko li nga xamante ni mooy làmbam man loolu daal laa ciy permettre li ci wax nit bu fekkee dara di ci wax lu ma wax lu ma war nag ñu jéggal ma ci mais sama xalaat lay waxee. ok séance d'entraînement yi gis nañ nga accompagner woon ki nga xamante ne moom moo di sa tegal ko lu benn instant sax doon sonn kon donc yow mi nga xamante ne yaa ko doon accompagner ci entraînement yi moo xam contact moo xam salle ak fële nga xamante ne moo xam ci dun yi euh, nga jékki-jékki dégg ñu naan bi moom moo nekkoon dernière euh, nu mu tudd chance ki nga xamante ne moom moo di Balla bien vrai que ni mu ngi ci cercle des VIP ci euh, loolu noonu naka ngeen ko dundee. waaw ñu koy wax moom damay seetaan wala mag déglu leen air damay jàpp rek parce que boo toogee di supporter sa mbër mu nekk ci tolof tolof jëloo yàlla teg ci kanam xam ni ba muy am muy neex ñim daan daan gënu leen day gënu leen bàyyi tey mu ñàkk benn combat teg lawul defetam benn defet la teg la suma benn defet la la jël ñëw ñu ne dernier sens ak su ko tey Gris Bordeaux xam nga entraîné ànd ak ay mbokkam daj lu nekk moom moo ko xam nga toog seetaan moom neex la nga naan ay dernier sens ak yooyu loolu dañ koy wax ñoo xamante ni ñoom la engagé mais dama ni ñaan nit lépp looy wax na nga suur sa ëllëg waaw man loolu la la ñu conseillé ndax nit moom booy ànd ak moom ba naa ko tari sa dernier sens moom kooku sa ànd ak moom des na waaw nit da nga koy gunge ba mu àgg nit da koy gunge moom àgg loolu loolu la loolu la nit di maanaam ngor loolu lay jëriñ tolof tolof du mus ñàkk waaw bu bu nu ko xetee sax bu réew mi na tëjee nga dem di naan petite kay moom bu ibbee nag dëgg yàlla waroo dem ci ndox réew mi da nga war a toog fi nga toog waaw di encouragé aussi Gris Bordeaux di wax ne ko mbaa bu neex la bari kenn du ko xas kenn du ko ŋaññi moo Balla Gaye dañoo joxe dañoo firni dañoo wane ne askan bi combat bii mooy komba te wax dëgg yàlla man combat bi du kaadali ma bokk ak moom wala du tax bu Balla Gaye moo tax mais seen combat bi moo dàq ci arène nationale sama gis-gis nag waaw. ok Sa Thiès ku ko xam xam ko ci communication bu bu baax ñu gis na keroog dekk nañ la micro nga daal di dérailler daal di euh, joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ne moom moo di père de daal di koy wax ne ko doo ki war a daan Balla moom doomam bi ko war a daan juddoogul fan nga teg loolu Salif. non waxuma doomam bi ko de xam nga. war a daan juddoogul waxuma waxuma de dama ne ko ne. moom Balla Gaye moom mën doomam bu bu juddoogul loolu laa wax su wax ji déranger nag maa ngi ci jégalu waaw waxee ma ko ngi dara mais dama ko wax ci cas de làmb mais dama ne rek bu fekkente ne làmb day àtte ci diggante ñaari adversaire yooyu jëla kenn ku ci nekk sa bëreeg sa palmarès ak fi la làmb yóbbu ak fi làmb fu ak fa làmb fu mu la yemle man dama ne ñaari yoon nañ ko mënuñu leen a complété kenn mënu leen a méngale loolu laa wax li ma gëm li ma gëm Balla Gaye yëpp doole li ma gëm Balla Gaye dàq bëri li ma gëm ñu mën a xeex ñëpp kenn du ma kenn du ma ci Balla Gaye ok seen prochain euh, nu mu tudd adversaire di ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang war ngeen ko am janvier euh, naka ngeen koy waajalee parce que Omar ku ne xam na ne ay combat yi passé yëpp INSES da doon dem mais contre Gris Bordeaux génnul fi nga xamante ne moom moo di Sénégal fii la resté euh, defee ko fi est-ce Boy Niang di ngeen dem INSES wala fi ngeen koy defee waat liggéey bi continue encore daal bu fekkee dañuy dem bu fekkee demuñu aussi yaakaar naa ne li ñu gëm ak li ñu bëgg mooy euh, lundi incha allah rabbi dina commencé entraînement am waaw ci ci dynamique bii mu nekk nii aussi tamit da koy continuer waaw loolu daal xam naa ne incha allah danañ ko def u neexee yàlla suñu borom. ba tey. bi nga waxee wax jooju ñu dégg si waxi nit ñi naan Saliou dafa bëre Boy Niang Boy ñaar daan ko moo tax mu génn wax loolu si ñeeg nga xamante ni ñoo jege booy Niang loolu lan sànni si seen wax loolu lan nga siy doon wax waaw ñoom moom ñooy ma ñoom ñoom la leen daal man dëggoo man ne bu dul woon làmb Balla Gaye ak ak ak Boy Niang du ma ci wax parce que tamit dañ maa posé question ci làmb jooju sama mag lay bëre su ma ci waxul kan moo ci wax ñoom ñoo ñun di tontu ñëpp maa leen gën jekk ci wax ci bi kon nee naa leen daal lu ci mën a am maa waaw ba tey ne man ba ma daanee wëlbati naaw daan falaaya man ba ma amaan naa kombaa daan. mais mu dafa seet géejawaay nga xamante ni géejawaay ba tey lay la moo ëpp solo ci àdduna fexe ëpp nit ñi ndam loolu la nit di ndabu mais maa daan nii maa daan nii man samay nawle kenn ëpp ma ci victoire te maa ci gën a néew defet waaw loolu laa leen di bi am ndam ci yow bay dem mais man kon gëmuma yàlla kon gëmuma yàlla man su ma nangul woon dara du dem du ma du ma demaat dem da man ba may daan samay nawle gënuma leen day gënuma leen bay gënuma leen day gënuma leen bay c'est-à-dire que wax ji nag mën naa neex xama wala ñu bëgg affaire yi sax fara <laughs> ñuy waxee noonu mais man boo ñaaw ba may daan daf ma war a daan ba ma daanee damaa seeti leneen moom mu dem seeti leneen man dem naa am ndam moom moo dem essayer waat affaire tax ci moom ñaari côté waaw moom ngeen di question moom ndax bu mu duggee ci bi ci VIP yi ba léegi la moo tax amu fa ndaw yéen loolu ngeen war a lijjanti. Ah, loolu du yombal de loolu du yombal encore daal yàggul dara fii gis nga fi mbër bu bëri ba mu paree waa Pikine ñoo ko doon saaga waa dama ñoom Boy Niang ba mu combat bii passé bii passé ba bëree ba pare mook Tapha ñoom ñoo ñu di wax ñoo ko doon saaga. yaa mooy sànni ndax daan na mbëru bii mooy naan da naan bu daanoo waatee dañ naan ndax war nañ ko bàyyi ci VIP yi wax day leer non non wax day leer day wax wax du dëgg da nga naan ndax bu daanoo waatee ci combat bii ndax war na bëriwaat ak VIP yi. loolu may wax ji. waaw loolu mooy wax ji. waaw moo tax man ne la da naan bu fekkente ni da jëlee na jëlee jëlee na ci nakar moom lan lañ ko war a waxal man loolu laay wax loo koy du wax. boo ñëwaat bi may dañaa sansam dañaa sansam de xale bu ndaw la xale bu ndaw la pourquoi carrière jeexu ko waa mais kon pourquoi dañee sansam moom laa ne dama ne ñi naan dañ dañee sans ñëpp dañoo xamul dañoo xamul dañoo xamul àdduna ñoom jàpp nañ fi ñu toog fa la ñuy toog dagg seen i billet toog seetaan buñ dumaa seen ba ñu taxaw saa ko xas ko ràpp mm. ñu dem dëkk ko fu mu dëkkul. foofu la ñuy duggee si Balla Gaye. ñu xooloon Balla Gaye ba Bombardier bi mujjee def bëri mbay combat ba foo ba Balla di indi beneen méthode boo xamante ne bokkut ak boobu mu dikk xeex bëri am si dara loolu lan ngay boole si bële passé ak bii la man damay bëgg di di tontu ci ci question bu nité question boo xamante ni question bu am importance la. mais sa dernier am amul lu ma intéressé xam nga kan moo ne ci dernier sens ki tëdd ci la lopitaal bi sukuraat ndax bu demee du dellu soir ngir boo doo nekk ci dynamique di bëri wala ngay nekk dynamique di bëri yow yow bu daanoo nga ne yow dafa war a dernier sens am ngir war a kañ nga jaan doom moonte mi ngi bëri ba léegi te bu bëri kenn du ko xas bala nga ñaari vitale fi tegle kañ la nekk ci naan jafe-jafe ay benn defet ñaari defet ñeen dafa nekk ci torof torof nañu fexe ba seen ñoom ñoo ñu di wax ñu am mbër boo xamante ne toll na ni Gris Bordeaux wala Balla Gaye wala Boy Niang wala wala Ama Baldé foofu la àdd fa fa la réew toll mais toog jën di dagg sa bien màcc sa karam glace naan da ko war a fàq war a da koo def nii ñoom nañ dugg dem nañ dugg ci géew bi. ne ñu ngi si VIP yi Balla Gaye moo si am xamante ni ay at yoo xamante ni def na ko di ko bëri ba tey bu demee bu bëree xale boo xamante ni bu nit ñi naan Balla Gaye da doon maye ay nga xamante ni combat jànk la Boy Niang dina ko jëli den dina ko jëli dina fekk ko duma dina ko daan ci bam Balla âge bi mu def si mag non dama ne Balla Gaye day mag calculer ñoom ñaar seen ko seen seen âge wala ñu andi seen quarante yi ñu jugé leen fa la réew foofu foofu rek laay wax ak yow wax ji nag mun naa bëri Balla yàlla moo ko teel a may succès bi mu am âge bi boo ñaa am nii ba ko Balla amee am na am na roi des arènes am na am na grand combat am yu mag a mag dem taxaw fële loolu mooy seen différence mais du ay mag ak xale dama jëli seen quarante dina fexe bi li may wax bàyyi xel wala kenn ku ci ñoom bu ñu amee bu ñu bu dee mën nañu dañu andi seen quarante ñu andi quarante Balla